Similar. Macky Sall day a eh, la mu liggéeyoon ca Burkina Faso ga yàqu na mar di taali ma ne la la mu liggéeyoon yëpp tàbbi na gée tribune yéene kaay ne proposition yi nga xam ne kon Macky Sall moom la defoon fa la day ña nga xam ne ñoo seqoon coow la day kenn d'accordu ca uh-huh. ma ne la parti yëpp ni kenn d'accordu ca Macky Sall kay fi mu na dugg na ci am ruba goo xam ne ca wagga dugg goo ga mar di ni ki démb nag ci altine gi day waaw am na ci ay manifestation da ci yenn la te ñi nga xam ne ne d'accord uñ ca coup d'état googe ñoo def lu ni mel tey coup d'état ga la ko ti jeene ne kay ne armée ba ak askan wa day waaw ñoo ñi nga xam ne kon ñoom ñoo def coup d'état boobu di waa RST ma ne projet ba yàqu la gën a jege de boo ni ni ki démb day waaw yar daal mi ngi ñu doon may ngir ñu commencé tàccul na kon suñu président suñu Macky Sall national mi la rëkkal ko ay njuñu dëggal koy sabar ngir màggal na kon ndamam loolee ca Burkina Faso hélas waaye ndekete yoo la ñu fa commencé amal nak ay manifestation yo xamni kon ñu dang jeur la ca mbedd ma waaw ñok seen militaire yi nga xamni kon nguur ga la seen nguur ga tribune yéene ne président Michel Kafando mako jité waaw yek na lu melni xamé président Macky Sall ak yaay boni eh, Kafando ne Macky Sall ak yaay boni momé waaw li ñu def la bolé wuñ ma tax eh way Samba Mankeur Ndiaye weddi na ko dee néna lolé amul ci yéene kay gi man Mankeur dama am sax kon ab mbette lol bama déggé président Kafando nan bolé wuñ ko cax ñok mom ca walum négociation ya tribune yéene ne aluntine waaw la Macky Sall def day ca Burkina Faso d'accord ca déedéet aluntine daal jàpp na ne maanaam jéggal kon ñoom général Diendéré ngoo ŋee nga xam ne ñoo fa indi coup d'état ba waaw mais loolee du yoon aluntine ne xam nga def lu ne wàng te dara du la ca fekk wàllum impunité waaw mais moo yàq kon suñu continent bi la suñu dund gi waaye itam banqaas yi nga xam ne kon ñoom ñooy doxal suñuy réew di institution yi Omar Sarr bu parti démocratique jëlee dogal bii nga xam ni kon moo jóge ci CEDEAO ñin ñu def ko fii ci suñu biir réew ci Burkina Faso réew ki jiite CEDEAO di Macky Sall ci boppam waaw nee na la jóge kon ca CEDEAO googu mais du ko def ci dëkkam CEDEAO ne ko defal nangam ca senegal mu lànk ñëw ci Burkina Faso moom Macky Sall ñu def leen li CEDEAO santaane luy ndeyug lii <laughs> ah Omar Sarr yamu ca ndaxte nee na yéen nan ngeen meuna comprendre Macky Sall mi nga xamni ne kon daal lànk ndaari tëdd ci souf ne dogal yi nga xamni ne ñoo joge kon ci CDAO go ke du ko def ba nopi nag di laan di sàkk kon ci benen dekk ne ko def ko balaa ngay santane sangu day fex ngay ragu yeneewul mana dal c'est pas cohérent deng yow ay dirigeant yo xamni dañoo jël seenu rew note len mom sa bop gi liberté football kon walum démocratie ak walum justice bi fële mais ñe kan warul di len duggal kon ci zaru mel ni ah. Omar Sarr ay wax du samay kaddu de kaddu la solo yene kay dal moy armée ba waaw moo daal di sàkk nag ca ña def kon ci coup d'état googe mais nañ leen déglu déglu rek le populaire ne général Diendéré day ak waa dem ca Burkina Faso googe ngir ay tànku jàmm waaw dëkkam day dund ñu jàmm démb ne ma ne la ndox mi démb waaw jéggi na dayoo rey na ne kon ñeenti ah, yoo xam ne kon amul fenn ay oto yoo xam ni kon yu bare bari yu tëbb kon ci biir géej gi ay kër yoo xam ni kon inondé fees dal benn bébé boo xam ni kon daal la ca Grand Yoff gee allahu na ci benn fas boo xam ni tamit daal ko maas ca Thiès gee nekk nañ ay daw laako kon sinistré kër ya ndox ma dugg na fa miir ya daanu laas eh la taw ba yàq dee bu bëri na grand place ne ko dëgg la ci njaay jël jóob daa am doole na taw bi waaw ma ne la ca diwaanu Touba gee lam fa yàq bëri na waa Touba goo gee tribune yéene kaay nee na kuréel kon Mbàkke Mbàkke ndaw yi waaw Serigne Assane si Karim Wade day ci kaso bi ah, waaw waaw délégation baa bëri woon lool porte parole baa nga ca woon Serigne Abdou xamal nañ Karim Wade daal jafe-jafe bi nga xam ne kon moom la sénégalais di dund réew mi tar na ba mel ni kon tiraay ba mel mi ti na lool askan wi ci boppam tabaski baa ngi nii ñuy waaj waaye dara mbir mi mitti na mënuñoo gérer kon dépense bi ndax dund seer gi tabaski bi wàllum inondation yi courant bi ko fee suba ngoon gu dégg bëccëg di Macky Sall looy njéeg Macky Sall lay njaag Macky wane na li mu mën il a montré ses limites yéen gi ne Salbe Ndom tamit dem noon seeti Karim Wade démb de libération yéen kaay ne maa leen di wax Salbe Ndom lan la wax Karim Wade démb ca kaso ba Salbe Ndom xamal na <laughs> gi ne Salbe Ndom waxati na de ñoom Serigne Assane Mbacké territoire bi yéen kaay daal lañu wax Karim mooy booloo manifestation doo nga lay génne fi le te ñun tamit la jàppale kon ba nga dugg jàppale doon xamle ne day tekki ndomba tànkam weddi na ko premier ministre bi nee na loolee amul manipulation la ca màkka gam nekk la ko waxe waxee ñaawi ci biir affaire nag l'observateur ne président Macky Sall day fëgg na ca kaw taabal jax waaw waaw nee na leen seet yu ñàkk fayda yii ngeen di wax kon ci micro yi journaliste yi laa bëgg mu dakk ñëw Sall ngaari lam toor Macky Sall nee na dootuma jéggale te laa wax ni kenn di def kon ay tojaangi di ay dérive doy na waar la doy waar kay tribune yéene kaay na mooy la horreur su xasee ba am rek na kon horreur la nek borom kër kay guddiñ tol ni la mitti lol la def waw tabaski baa ngi nii xoj leen fe école bu ubbi bi rek ba ngi leen xoj fe mané ne la nekk borom kër guddiñ tol ni ci réew mi erreur la ndax mitti go xamanteni ni kon dëkk bi mitti na ko jéggi na dayo <laughs> la ilaha illallah borom kër yi nelawatuñ ba yandor nelaw bay xaram déggatoo ko ci benn kër fi mu nekk nii kay foo romb mais ngay dégg ñu